man la alaaji cun samb man may jur faat tuuti samb bi ñu faat euh, ñu fekk ko ci àll die bi waaw euh, maa ngi ko yëg euh, dimanche ci guddi léegi man bi ma jógee Fatick laa nekk comme agent de sécurité ci Sénégal dem dik agence Fatick laa nekk léegi bi ma ñëwee gàmmuwaat ci samedi bi dama ko laaj yaay mu ne ma depuis àllarba gisuñ ko àllarba ci ngoon daal la fi jógee gisuñ ko léegi man nag euh, comme samedi bi laa ñëw te mënu moon def déclaration à la gendarmerie wala à la parce que ma doon xaar lundi matin ma dem def déclaration bi léegi dimanche ci guddi yaa waroon voyager dem Touba ci benn ngénte benn ngénte cousin moo doon war a jël jabar léegi bi mu demee garage Dakar di jël oto mu ngi ànd ak benn rakkam bu jigéen rek ji ne ko dafa xiif léegi mu ne ko xaar mu dem utal la loolu lekk léegi bi mu demee ci jaaykat yi côté jaaykat yi mu gis ay apprentis yu amee portable naan xale bi ñu rey photo yaa ngi nii bon après mu booxante ba dem gis photo yi xam ne ne doomam la parce que li mu gis ci photo yi mooy soutien bi mu soloon ak chaîne bi moom xam na ne que moo ko demoon parce que ci gaa yuuru gàmmu gi la ko jëndaloon après ci la dawaat wàññeekoo ñëw kaas pour xool pour ñëw wax ne doomam mu daal léegi man pour ma am confirmation tamit ci guddi gi ay minuit quelque damaa dem hôpital ci bugg a dem ci morgue bi ñu ne ma doo mën a parce que guddi na mais da ngay dem gendarmerie nga xool foofu. da ngay dem sapeur nga xool peut-être peut ñoom ñoo jëloon corps bi mun na am ñu bind ci tur ak yooyu léegi bi ma demee sapeur ñoom aussi même chose lañ ñu wax parce que xale bi amutoon carte d'identité léegi description rek la ñu mënoon jox léegi mu ne kon garaawul après le lendemain sama classe yi nekk Dakar ay commandant de brigade de ressources ak yooyu ñu joxoon ma adresse ñu joxoon ma numéro téléphone numéro kii ne commandant bi nekk fii commandant de ressources bi nekk Kaolack Nunez léegi bi ma ko aayee mu ne ma effectivement. man maa yore kii bi léegi da ngay ñëw foofu à sept heures ma dem fa après ci leen ma woon photo yeeg yooyu daal ma xam ne sérieusement sama doom moo nekk nii daal da doon jàng du école nag parce que bi mu defee CEP ak entrée amutoon mu ne comme xelam màccul ci loolu te ñaw la gën a bëgg léegi kon naa ko fayal mu dem jàngi ñëw léegi ren la waroon def troisième année en couture parce que da daaw jéeg la ak daaw ak ren waroon def troisième année euh, lundi passé lundi bële rek lu bii bi bële passé ne ci semaine bële ñu génn laa ànd ak moom dem euh, cœur de ville pour inscrire ko foofu ci un certain monsieur Barry léegi le mercredi mu oo ma téléphone le mercredi matin oo na ma téléphone ne ma dem naa école waaye Barry dafa def choc léegi lënd lañ waroon lañ war a jaay comme lenn bërki démb bi far ci dëggante bi loolu am daal. la bu yaru woon la nag bëgganteeg ñëpp euh, wax dëgg yàlla xale bëggoon na xale bëggoon na mag bëggoon na ñëpp amutoon nag kenn benn ñool ñool amutoon kenn benn problème euh, parce que yar bi ñu yaru suñu kër këru famille lañu yore euh, boo gisee garab gi ni mel noonu foofu mooy grand place koñ bi ñëpp bu dee tabaski vacances yëpp foofu lañuy ñuy tase. mu amoon ak ñëpp jàmm sérieusement dégg ma mu xeex dégg moom mu xuloo bien que man maa ngi Fatick mais dégg mu ne ne Fatou Samb moo fi xeex wala moo fi def lii waaw loolu moom mën naa ko jugé